Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. établissement Mbaye Frère soxla wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. kon waaw. waaw mi ne ceeb boobu dañu doon ceeb bu bari ak nag yu bari ak xaalis bu bari suñu tubaab nag lu ko waay defal ay millions yoo la sant kon du loo insulté mais loo yeyoo yi ci bis bi ñu nekk si Sadio waaye ñu ngi leen jox kàddu yi ci biir comité scientifique bi nga xam ne mooy irrigation Massalikul Jinaan kon benn ma digg sa bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin sant naa bu baax ndax waxtaan bi suñ ko waxtaanee woon ba mu jeex te fekkewuma ko wax dëgg yàlla danaa am yaraange danaa am mettitu xol ndax kan man fu noonu tuddee sëñ Saaliw maa fa war jiitu dama demoon Tuubaa di soog agsi waaye kenn warul ma fi woon jiitu li noo jëkk tàbbi sunu kàddu mooy li noo jëkk tàbbi sant sëñ Muntaxa ñaanal ka ba fi mu yóbbu yoonu murit mu weesu lool lu weesu sunu njort wax naa ko bëgg dem ni ko kenn weranteetul ñaar ñii ni mi si yoonu murid bu jëkk bi mooy gëm yàlla ku sell jox sa bopp yàlla ba mu tàkk ma ni ko ku la gis rek wax dëgg yàlla xam ni man nga ko ba mu sëkk kenn weranteetul ni yoonu murid xam-xam bu wóor moo si nekk bu njëkk dañu defe ne woon ab jaayeen rek lay doon waaye waa comité scientifique bii ñu leen faral di leen déglu ajuma ji nekk si jumaa ji ñoom seen waxtaan ma xam-xam bu wóor moo fa nekk sama mbokk sama benn mbokk mu bokk si beneen taarix dafa ne ma man naa fi Tuubaa rek lay déglu soo demee Màkka ñee naafila ak Alxuraan ay nit lay doon danoo awante Tuuba benn nit la te soo xoolee ci jëmmam da xam ni kii amul ñaari fukk at ak juróom te mokkal Alxuraan ba mu mat sëkk mën ko tëri ma ni ko nag démb la tëdd tey ndax ku am sa biir tarixa sëñ daama Abdourahmane sëñ daama Abdourahmane Lo mi nga xam dafa daan naafila ak xuraan kon kay Tuuba war nañu mën weeru koor di naafila ak xuraan kii noo tudd nag wax dëgg yàlla moo dajale lépp lépp soo seetee sa sëñ Modou Moustapha sa sëñ Saliou sëñ Abdoulaye sëñ Abdou ba si moom lépp la dajale moo taxit man toujours fu tudd sëñ Saliou damay wax nii sëñ Saaliw ñetti bokk la dundam ñetti bokk la mooy kernal yàlla bu ma sëkk si biir kernal bi jaamu yàlla bu ma sëkk mi ngi si jaamu yàlla dafa jeex tàkk si boromam dama leen nettali benn xiis du ma tàyyi mukk di ko nettali dama ànd ak sama benn xarit Touba sama benn xarit tubaab ju dem Touba mu ñëw gis mbooloo mi soxla sëriñ bi di mbooloo moo xam ni kenn xamul nan la toll ñëpp di buuxante bi nu duggee ba si biir ñi ngi fekk sëñ bi mi ngi toog si lalu dénkam bi jël sol bu mu woyof wax ni nan ko indil fu mu toog nu jox ko fu mu toog moom mu bëgg toog suuf sëñ bi di ko déedee nu jox ko fu mu toog jamono yooyu sëñ bi arthrose yi téyewul woon loxo yi moo lay jox café si loxo boppam sëñ bi xiim café jox ko ba mu ko joxee tubaab bi di jooy jooy yu metti yu mat sëkk sëñ bi ni nan ko laaj lu ko jooyloo mu ni moom du jullit catholique la waaye dama gis ay jukko yàlla ci sëriñ bi jukko yàlla yu mat sëkk ni sëñ bi ni mu amee doole ni ko nit ñi bëggee àddina ni ko daw wute ak ni mu dëddoo àddina ak ni mu woyeefe boppam ak ni mu amee yërmande mi ni kii jukko yàlla dëgg-dëgg moo nekk si moom kooku mooy kennal yàlla ki ñaareel bi mooy léppam sëñ Tuubaa la ko jox jarul ma koy wax ñi ma wóor ñoo ko jëkk xam mi ngi tàmbalee si sëñ Moodu Mustafaa ba sëñ Abdu Xaadir ba yàlla def ba sëñ Murtalaa ba yàlla def mu doon sëñ Touba léppam yàlla la léppam sëñ Touba waaye ñetteel ponk bi di dundam mooy àddinaam yépp mooy jariñ mbindéef yi la sëñ Saliou dafa doon jariñe guddeeg bëccëg da nga koy gis rek sa soxla faj man de moo ma ko gis soxla yàlla xam na ni fu ma amee soxla damay taal sama oto dem ba ya yendoog moom di ko xool di fas li ma bëgg su ma ñëwee yenn saa yi bala may jóge fa ma ba may jógee Touba lan may téléphoné ma ni ma sa soxla nangam fajo na bala ngay ñëw ma ñëw sukk si moom ni ko Mbàkke sant naa de bi ma doon ñëw soxla moom taxoon ñëw waaye fii lan ma woowee ni ma soxla bi fajo na mu muuñ te du bàkkoo dara ndax gëm yàlla bu bët sëkk léppam daf ko jox boroomam sëñ bi doo ko gis benn yoon mu wane leneen leneen lu dul yàlla ma nag mbirum jàngale bi waxuma ni mu bëggoon nit ñi jariñu ci àddina xel kom ba mu ko doon defar jël ko di ko def plan di ko séddale masul teg tànkam xel kom taxawal nañu xel kom ba mu pare mu fay soog a dem li mu wax léegi te sëñ sooy bu wax ko mooy dëgg-dëgg dafa ni sëñ saaliwu xam-xam ba mën na téye réew waaye soxlawu ko soxlawul àddina ni mu xamee woon àddina te dëddoo àddina kenn xamul nañ la toll dama fa ànd ak ambassadeur États-Unis bi mu ñëwee toog sëñ saaliwu ni ka ni ma waxal ka wax ka ni ka ñoom bii bég nañ si su yàlla defee ñu doon si réew mi nga xam ne si wàllu koom-koom ñoo ëpp doole si wàllu gànnaay ñoo ëpp doole ñu jóge fa mu jóge si réew moomu ñëw tànn Afrique réew mu néew doole la Sénégal si biir Sénégal mu tànn nu ñëw nuy sunu ni ko ñun wax dëgg yàlla fonk na ñëwam bi tubaab bi ni ma laajal ko ambassadeur bi fan la xamee ni ñun ñooy première puissance économique fan la xamee ni ñoom ñooy première puissance au niveau des forces armées ni ma laaj ko ñu defee fa lay yem sëñ bi di ko laaj ni dama bëgg xam si ban wàll ngeen di doxale ba foo xam ne fii day bay ay coton fii euh, euh, euh, nan la tudd maïs di ko bay nan lay demee dafa su suuf si la wala lu ngeen taamu waa ji dar génn ma ni ma lii kii kat xam na lan mooy coton belt xam na aussi lan ak leneen kon sëñ Saliou noonu la xamee woon àddina loolu tudd li nekk rek mën na la si teg baat te bëggu si dara. léppam daf ko joxoon yàlla ñun amuñu fayu sëñ Saaliw sëñ Saaliw li mu liggéey si yoon wi dama ne dafa dajale liggéeyu sëñ Modou Moustapha liggéeyu sëñ Fallou liggéeyu sëñ Abdoul Ahad liggéeyu sëñ Abdou lépp mu dajale ko si dund gi mu dund mu matal ko ba mu mat sëkk moo tax tey koo gis rek. muy kuy jariñe gëmal ni ku gëmoon sëñ saaliwu la wala ku sëñ sëñ saaliwu yar la bi mu fi bàyyee nit ku baax ku mal ne Serigne Cheikh ku mal ne Serigne Moustapha ak njabootam yëpp waa njabootam yëpp ay tànneef lañu Serigne Cheikh moom rek nga fi gis ci jamono ji di sëriñ mu mën jël nangami milliard def ko def ko ci jumaa dem demal jumaa mbuur gi jumaa mbuur gi chef d'œuvre la dërëmu kenn demu laajul fenn demal jumaa xàbbaan demal jumaa fii fu mu toll mi ngi koy def si jàng mi di ko def si jumaa ji di ko def si diina ji kon kooku mi ngi si tànku sëñ Saaliw du ma sori waaye sëñ Saaliw aw ma fayam man de wax dëgg yàlla su ma ko daan xool rek sama sama sama lépp faju moo tax su may tooñi sëñ Saaliw yenn saa yi may dox si mbedd mi benn xale bu tuuti wax ni barke sëñ Saaliw la ma am ma jox ko ko ndax xam ni sëñ Saaliw moo defar sama àddina jërë ngeen jëf établissement Mbaye frère soxla wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864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 Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn